bis bii nag bés la boo xam ne bisu sant yàlla la ndax li tax mu nekk bisu sant yàlla mooy marché bii Serigne Fallou moo ko rëddoon ñaan fi ba barke bii ñëw fi tey ñu delluwaat tey di ko yeesal yeesal bu toll lii ñu jël Serigne Amadou Badawiyu di doomu Serigne Fallou Cheikh Mouhamadou Mountakha nekk Serigne Touba jël ko yebal ko fi kon du tam ma loolu doy na doy na yaakaar bu dolle Cheikh Abdoulaye tam ni mu defoon dëkk ni mu ni mu ni mu defoon marché Ocass gii ba ci sëñ Fallu noppee ba mu ñëw ba wàllam ñëw ni mu ko defoon lam fi bawoon moo fi nekk ba nëgën ñëpp teg na ci seen nga xam ne ku amoon yéene ci marché bi ba mu si fii kon Abdoulaye Atika ko sëriñ si di jëlee teg ko ci maire bi yàlla dogal liggéey bii amee ci ab loxoom loolu itam ba tey sant yàlla la wante nag sant yàlla gi mi ngi ëppee ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax sëñ Fallu ba mu ñëwee dafa defoon sëñ Abdoulaye woo wootewaat nga xam ne moo jël initiative boppam sëñ Maodo Mountakha nag yàlla def ko dimbali mu am ñu mel ne ñu baax ñii toog àndandoo xam ni lii war na sëñ bi waaye sëñ bi leneen war na ko leneen war na ko lépp jotiwu ca ñu ne nun kat fii mu nekk di fi tedd nan fi nan fi nekkal sëriñ bi lu mu fi waroon def ñu defal ko ñu àndandoo jóg taxaw ca di ko dox di ko wax di ko dox di ko wax ba président mi nga xam ne tey moo yilif Sénégal yëpp tey foofu dara nekk bu ko jàmbur defee moom la war bu ko defee moom ci boppam itam moom la war mu nangul leen ko nangul boobu mu leen ko nangul nag président ji boppam na xam ni ndimbal la ci moom ndax foo xam ne sëñ Fallou fa tàmbalee sa yëpp laat yóbbu ko fi mu yegg ku fi jaar te nekkal fi Serigne Touba bàyyi nga xel barab bi gestu ko ko ngir màggal sa kilifa yi fi nekkoon te ñooñu lañ waxoon waxtu wu ne day jëm kanam marché bii du ab marché ay luuma ay national ak nangam fii marché international parce que boo fi duggee di nga gis waa Guinée di nga fi gis waa Nigéria di nga gis waa Mauritanie di nga gis waa Mali di nga gis waa Gambie di nga gis ñeneen ak kon nag marché la boo nga xam ne amul benn marché boo xam ne gën na koo rëcc dañoo ñëw pour tàmbali liggéey bi lii nag ak ñaan la goo xam ne day tax incha allah mu doon liggéey bu mucc ayib looloo ñu indi woon ñu tàmbali ko def liggéey bi yàlla dimbali ñu ci ñu mën koo sottal ak jàmm. liggéey bi mooy defaraat yoon yi tali yi nekk biir marché Ocass. tali yi am na ci yoo xam ne yoon yoo xam ne amul tali dañ fay def tali yu bees am na am tali dañ koy defaraat loolu nag moo ñu fi indi woon fekk nañ fi aussi benn réseau assainissement boo xam ne danañ ko defar bu jaree ñu yokk ko danañ ko yokk xam naan danañ ko yokk ndax boo defee tali rek indi nga imperméabilisation donc di nga yokk di nga yokk assainissement ci boobu la ñuy sukkandiku aussi pour yokk assainissement bi. projet global la nag li ma mën a mooy projet bu global la boo xam ne nii <coughs> xoolee. yemul rek ci ci defaraat marché Ocass dafa tollu ci defaraat yooru Daaru Karim yooru Tindóori damay lim nii rek léwu yëpp yoonu Baay Kër yoonu Baay Faal yi fële boo jógee côté Janatul Mawa ak yoon yëpp ci la bokk ak contournement Mbacké jógee autoroute génn génn dugg biir biir Mbacké yoonu guy mbind yooyu yëpp ci la bokk mais fii ni ñu nekk nii war eh, yoonu yi ñu war a defar fii ci biir biir eh, biir marché bi mën na yegg un milliard ba un milliard yu top te liñ def mooy deux kilomètres yoo xam ne ñu ne commerçant yi identifié nañ ko ba pare pour tàmbali ko waaw mais du yem foofu waaw du yem foofu parce que yeneen a ngi ci biir mënuñu koo lim fii yëpp. moom dama ci euh, dalal xelam ndax financement la boo xam ne am nañ ko ba pare parce que fan yii yëpp yéen a ngi dégg président Macky Sall di wax ci discours am yeeg yëpp naan programme spécial de désenclavement ne vingt cinq mille kilomètres yu mu war a defaraat financement da ko am ba pare da ko am ba pare. yenn yi projet yi mun na am yenn jafe-jafe financement ndax budget état caisse unique la priorité yeeg yooyu mais bii financement bi c'est à part am nañ ko ba pare te bu soobee yàlla lii ci sëriñ bi lagal incha allah du ci am. bu dee biir marché occas bi am naa yaakaar ne weer ak weer lu topp maximum ñaari weer mën nañ ko mun a yeggal soobee yàlla. waaw maintenant nawet bi du ci yàq lu bari dina ci yàq dara mais du ci yàq lu bari ndax lu ëpp lu ñu utiliser du doon latérite. parce que liggéey ak moo xaw a jafe ci nawet mais bu dul latrit bu bëri dina yomb a defar leneen li rek mooy fàttali nit ñi ne ci marché lañ nekk nit ñi dañ ko occupé ba pare bu ñu amee lu ñu mën a tardeel xaj na ci loolu lay nekk mais am nañ yaakaar ne duñ fa yegg ndax ndigal la sëñ bi joxe am nañ yaakaar ne dinañ dinañ toppatoo loolu soobee yàlla. da may may rek euh, ñu sant le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ci ak yaatoom Euh, ci ak yaatoom ak ci ak bëggam lu baax ak ci vraiment vision bu sori ak it euh, euh, ci taxaw Touba non seulement mu nekk une ville moderne mais également mu nekk une ville industrialisée ba tax na marché bi nga xam ne mooy marché Ocass ñëpp xam ko fii ci Sénégal mu nekk l'un des marchés les plus important donc bu nee daf ko bëgg a moderniser commencé ko tey ci ay tali ak ci ay pavage ak ci éclairage public loolu sant ci rek lañ mën projet bi toll noonu nag képp koo xam ne da nga koy accueillir ya nga war ko am ñun ni ko séq danañ ko waxtaanee ba entreprise bi ko war a defar bu dikkee dana fekk ñun ñu pare ba ba noppi lépp loo xam ne laaj na ko ci waxtaan def nañ ko suñ biir ci sensibiliser nit ñi que ni euh, yëf ñoo ko moom ñun lañ koy defal te it euh, dañuy wax ne diggante changé yére summi yére sol baneen raf la xaj na ci waaye du yàgg kon nañu muñ te képp koo xam si ni da nga occupé bi mbedd mi vraiment nga yëkkati la nga fa teg ban liggéey ba pare ba bu ko defee ñu xoolaat buñ paree ta bëggatuñ li daan am am muy occupé voi publique bi de manière anarchique te vraiment euh, loolu li muy indi rek mooy tax dëkk bi li ñu dëgg-dëgg organisation am fi du fi am te loolu ñun ñoo war a commencé di ko def sans pour autant force de l'ordre di di di ñëw di ko euh, di ko kii wala autorité bi loolu vraiment ñi ngi ci woo ñëpp te tàmbaliwul tey euh, président accordé la audience bi au palais euh, dañ ko joxoon benn paquet ji mu jël ci yenn yoo xam ne dafa jox ay instructions euh, fermes et rapides loolu tamit vraiment ñu koy sant ci euh, ci activité bi ak ci célérité boobu noonu daal di woo ses service ku mel ne donc DG Ageroute jox ay instructions ne ko automatiquement Touba loolu ñu fay wax na daal di commencé moo tax boobaag léegi ça fait même pas vingt jours on est ñu ngi nii tey ci tegu xeer bi woo. Euh, DG Sénélec jox ay instruction moom tamit ñoom it ñëw nañ ba def seen ay étude ba ñu ngi ci incha allah euh, euh, incessamment danañ indi seen ay danañu revenir ñu waxtaan xool naka lañ koy mën a defaree. waaye ginnaaw loolu tamit am na wax nañ ci parc industriel parce que Touba ni ñu ko xamee dafa ne niñ ñu ko xamee mooy deuxième ville bi gën a rëy ci Sénégal ci ay nit waaye ci ab yaatuwaay loolu tamit li muy indi mooy. dafay laajaat yeneen infrastructure yoo xam ne dana mën tax ndaw ñi am xëy ndax it loolu dafa am lu am solo dafa nekk lu am solo ndax commerce dëgg la baax na waaye commerce dafa saturé fi mu ne nii rawatina fii Touba. kon amaat beneen sit boo xam ne day nekk site industriel Touba euh, war a nekk une ville industrialisée jeunes yi nekk ci charrette yeeg marché yi di occuper voie publique bi yëpp mën a dem ci euh, zone industrielle yooyu am fa liggéey loolu wax di yàlla dafa nekk lu am solo lool te président de la ñu ñaan ko. mu may ñu ko déjà sax mi ngi ci woon euh, avec euh, donc euh, ak ak waa ak waa ak waa APROSI ñoom ñëwoon nañ ci bëri seen ay études et kon loolu dafa nekk lu am solo ginnaaw zone industrielle bi tamit am na beneen marché bu bees bu bëgg marché Ocass boo xam ne dafa wax ne daa bëgg mu nekk marché boo xam day am dimension internationale bu ko defee ñu man di ci yaxantu waaye étranger yi nga xam ñoo ñëw ci dëkk bi bu ñu fi ñëwee man di fi yaxantu nga xam ne marché bi daal boo fi nekkee doo ñëwee benn. marché bu euh, soit Dubaï wala Chine wala wala parce que ñun dañuy dem fu nekk di di gis la fa donc dañ la ñuy gis fa ne nag wax dëgg yàlla dañoo bëgg mu am fii lool nag président ànd na ci ñun ci vision euh, ci plan Sénégal émergent mais surtout ci industriel ci euh, moderniser la vie saine de Touba mais également ci Promogem te mooy agence bi nga xam ne mooy lépp looy modernisation des marchés liggéey bi nag ñu mu jox ko waa Ageroute ñoom it ñu am ci passif loolu te ñu ngi ciy avancé bu baax a baax